remercier ñëpp parce que tey amicale bi dafa organiser une journée de don de sang don de sang nag dafa nekk loo xamante ni dafa am solo ci nit parce que comme ni ma ko waxee deret amul machine bu koy mën a defar donc y a que corps humain moom moo ko mën a defar pour joxe ko donc loolu bu ko fekkee ni nit ñi def nañ ko gest la bu ndaw c'est un petit geste mais qui a vraiment signification bu mag a mag a mag parce que deret comme ni ma ko waxee souvent bu ñu koy jox nit day fekk mu sonn day fekk mu nekk si dund diggante dund ak dee donc tey su fekkee nit ñi jël nañu seen volonte di joxe seen deret vraiment dafa nekk loo xamante ni ñi ngi koy joxe mais ñi koy joxe sax demain mën nañ ko ñoom bénéficier waat donc lu am solo la donc moo tax amicale bi xalaat ci dans le cadre de ses activités sociales organiser woon. tey journée bi donc di remercier toute la direction générale le président directeur général monsieur Latfala Layus qui nous a autorisé à faire ça waaw moo ñu autorisé ñu organiser journée bi di remercier aussi le directeur général adjoint monsieur Michel Layus di remercier aussi directeur yi nekk ci usine bi yëpp ñoom ñëpp participer nañ ci journée bi ñu ngi ñëw di joxe seen deret donc vraiment lu am solo la di remercier aussi personnel bi parce ñoom mënoon nañ ko organiser duñ gis kenn mais nit ñaa ngi ñëw di participer di joxe seen deret vraiment lu am solo la te dafay dundal activité amicale bi waaw si activité amicale bi nag euh, don de sang bi benn pàcc la ci ci programme bi ñu defaroon ci euh, pour exécuter ko ci année bi bu ngeen fàttalikoo mois de mois d' avril xaw ma mois de mars organiser nañu benn randonnée pédestre ñu dox 7 kilomètres cent Euh, organisé woon nañ fi aussi si bi école di ubbi joxe nañu ay fourniture scolaire bon dinañu ñu ngi jublu si koor gi dinañ jox suukaru koor à tous les membres de l'amicale war nañ aussi organiser une grande soirée de gala en fin d'année war nañ aussi ñi ngi xool ndax dinañ def colonie bi mais incha allah suñ ko defulee ren ce qui est sûr et certain incha allah su neexee yàlla année vacances 2017 moom dinañ ko organiser donc c'est en résumé les activités yi nga xamante ni amicale mi ngi koy def pour dundal amical bi pour dundal aussi usine bi parce que dina permettre nit ñi xam ni fii jaayuñu fi ciment kese mais am na ay nit yu fi nekk di def yeneen activités yoo xamante ni c'est ay vocation sociale la di dimbale nit ñi comme journée bu mel nii maye deret parce que deret moom euh, da nga maye woo ko da nga koo dénkaane rek parce que xamoo ëllëg kan moo koy utiliser voilà. waaw ñuy sant yàlla bu baax ci bam ñu mayee wér ak tal ba ñu mën a xalaat di joxe suñu deret pour mën a dimbali keneen koo xamante ni mi ngi ci euh, tolof tolof wala mi ngi ci situation boo xamante ni dina soxla deret boobu euh, di sant direction bi itam direction générale des ciments du Sahel ci lum ñu yombal liggéey bu mel nii euh, di ci sant itam amicale bi ndax ba ñu amee bureau bu bees matul juróom benn weer ak léegi gis nañ ni bureau boobu njaxlaf na am na initiative yu baax mu ngi dox ci li ñu séntu ci amical def na fi randonnée pédestre bu yàggul te teewe ngeen ko yéen couvrir ngeen ko léegi ñu ngi def euh, don de sang don de sang nag euh, moo gën a sax maanaam ëpp solo randonnée pédestre randonnée pédestre baax na mais bu ngeen seetloo c'est toujours dans le domaine de la santé parce que dox day yokk wér-gu-yaram euh, joxe deret dana dimbali ku feebar pour mu wér euh, te yooyu yëpp c'est des actions sociales euh, buy wane esprit bi nekk Ciments du Sahel Ciments du Sahel c'est une entre entreprise la boo xamante ni sociale bi malgré que nit ñi xamuñ ko bu baax dafa teew bu baax ci biir social boobu yamul rek ci biir usine bi dafa génn ba ci li wër usine bi euh, borom kër gi dina fiy joxe ay don ci école yi dinay joxe ay euh, don tabaski bu jotee dina joxe ay xar yooyu yëpp sax buggul ko ko siiwal mais dinañ profité waxaale ko nag donc loolu moo tax ñun employé yi ne ci biir ñu xool exemple boobu ñu topp ci ne ah lu gën a fort deret ci nit yaakaar naa amul ñu xalaat nii nag joxe suñu deret itam eh, dana wan nit ñi ni ñun eh, defar ciment rek di jaay wut xaalis rek taxuñoo jóg li ñu tax a jóg mooy soqali réew mi jàppale nit ñi dimbale ko sonn eh, particulièrement ku feebar donc ñuy sant yàlla daal ci bi dire bureau amical bi amee xalaat boobu di ñaan itam mu bañ yam fii te am nañ yaakaar ni du fi yam dana am yeneen ak yeneen yu topp ci ginnaaw yu dul don de mais don de bi ci boppam bëgg nañ at mu ne mu amaat benn yoon baa ñaari yoon sax. naaw bi ñu nuyoo ñi ñu dalal muy waa cimenterie du Sahel donc euh, ñoo ngi kontaan ci don bi nga xamee ni ñoom organiser nañ ko ndax euh, don bi li ci am solo te gën a am solo mooy euh, duñu faral di gis ci zone yu mel nii ay mbuur donc ay industrie yoo xamee ni maanaam à vocation commerciale lañ yor donc ñoom ñuy def ay dons de sang wala ñuy exercer très fortement euh, ay euh, action au niveau des structures de santé notamment établissement public de santé bu Mbour euh, donc kon cimenterie di Sahel bu ko defee tey donc dañ siy kontaan donc am ci mbégte di xamal di ko di leen xamal ni aussi lii am na njariñ ndax day sauver ay bakken yu bari surtout maternité chirurgie ak mbuur gi nga xamee ni axe la la boo xamee ni axe accidentogène la dafa bëri donc ay accident yoo xamee ni dafa fiy xew euh, donc aussi tamit euh, beneen aspect bi nga xamee ni moo ci amaat solo mooy don bi dafa ñëw avant weeru koor bi te structure de santé yi banque de sang yi dañuy am jafe-jafe lool ci weeru koor bi donc pour euh, dimbali malade yi ci deret ndax population Sénégal ni mu bindoo euh, jullit yi ñoo ci ëpp donc ce qui fait que jafe-jafe boobu day am mais don yu mel nii bu amee dinañu permettre ci mois de ramadan yi donc ñu mun a euh, approvisionner donc structure yi nga xamee ni yëpp donc soxla nañ deret et loolu je pense que ni aussi tamit lu baax la ñoo ngi ñaax ñi nga xamee ni commencé guñ ko woon nekk ay industrie nekk ay association donc au niveau de Mbour donc ñu rapproché wu donc de la banque de sang donc pour def comme cimenterie di Sahel mais nag bëgg naa aussi euh, à travers don bi donc ñu nouer un partenariat donc avec cimenterie di Sahel pour que affaire don bi bañ a yem rek cette année donc ñu mun ko di continuer les années à venir comme ça mu mun a nekk njariñu donc population. waaw donc dina mën a taxawu ñooñ ñëpp ndax vraiment euh, tey euh, on a prévu cent cinquante poches donc et loolu vraiment buñ ko couvriree dina mën a ñu permettre au moins ñu suñu xel dal ñu mën a dalal structure de santé yooyu ay maternité donc chirurgie ak yooyu pour que au moins nit ñi mën a liggéey ci xel mu dal donc liggéey ci jàmm xam ni sang bi dina mën a disponible donc au niveau de la banque de sang de Mbour pour que ñu mun di dimbali population